CNG bi fi jóge CNG bi fi nekkoon différence bi bëri na différence bi moom daanaka ñëpp xam nañ ko parce que boo xoolee tey jii nii xam nga pour man changement bi li taxoon ñu changé CNG bi teg fi beneen CNG gisaguñ ko quoi gisaguñ ko ndax amaana tey jii Alioune Sarr sax bi fi nekk amaana ni ñu gisee woon suñu bopp par rapport ak bi fi jógee sa waxtaan wax dëgg ca la quoi kon changement bi ñu def tamit pour man servirul dara quoi c'est changement bi c'est amul dara lu mu servir moment bii nii. xëy nag peut ci kanam mais instant bii nii moom changement bi ñu def ci moom servirul lamb dara dara dara dara. léegi différence bi bëri na parce que boo xoolee sax da nga koy xool différence ba am na ba ci combat bi passé bi nga doon wax ñu waroon bëri dimanche ci ëllëg si waaw ñu waroon bëri le vingt cinq boo xoolee loolu mën naa ne dëgg la métti na mais erreur CNG la aussi tamit parce que promoteur mënul tëggal làmbam tamit xam nga. ba def lépp lu muy def fay ay frais d'organisation fay ay sécurité fay lépp joxe ay reliquats am ak lépp xam nga ba ci jour bi xamul sax ndax làmb dañ koy rapporté loolu pour man faute CNG la quoi. waaw ministre des sports ministre des sports am na ci part de responsabilité parce que moom moo bi kon sport bu taxawee rek ci moom la bu doxee ci moom la yee am na ci part de responsabilité parce que tamit ñun mooy li ma rek ñun dañu war a jàppale parce que gars yi dañoo parce que tey boo xoolee ministre de sport moom lamb ji sport bi moo ci teewal président Macky Sall kon tey jii nii lépp loo xamante ni tey jii ñoom désiré nañu ko ci nguur gi rek pour pour bu ñu amee dara lu ñuy wax wala lu ñuy jooyte si moom lañ koy jooytoo si moom lañ ko war a waxee te moom amaana jàpp naa ne xam na li ñu métti yëpp comme kenn gënu koo xam xam na lépp nu mu demee waaw kon tamit benn sant tamit moom benn sant dañ koy jox toor ci benn côté waaw parce que lépp nii tamit dafa métti quoi waaw ñàkk jox làmb cër mi ngi basé wu ci ñi CNG bi CNG bi nga xamante ne tey jii nii ñoom lañ fi teg mais ba tey amul dara loo xamante ne tey jii nii ñoom servir nañ ko làmb du dara CNG bi ñu fi teg amul dara loo xam ne servir nañ ko làmb loo xamante ne di nga mën a xam ne ñii kat ñu ngi jàppale làmb wala làmb moo ñor wala dara xam nga làmb daal mën naa ne tey jii instant bi féete na foo xamante ni xam nga metti na quoi waaw metti na trop